في يدي وفي داري وثبتا Sakur ya na la <laughs> محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما موعظكم نافع في ملاهي الشافع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وهل تعتني بحق قدره ومقداره العظيم نسأل الله جالبا إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وقد جاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نشر إليها أبدا آمين يا رب العالمين وجعلها مما تتقنى بها الحور العين والمصداق في الجنة التي وعد المتقون وجعلها من أحب الشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام بسم الإله ينمو لهائي يا مناهي وانتهائي حمدا لربي خير مربي قد رمى قلبي بالابتلاء لو دخولي ونسيتي وجهداني لو قدامي بلا اقترابي لو قدامي مع بداري لك رضاني لك سلامي لك ابتدائي مع ابتدائي يا من سباني يا من أماني هم الجباني بما بدائي أسر صدوري أصلح أموري كسر خيوري بلا كداري يا من أجاب من استجاب خبري جاب بلا النداء يا ذا الجمال يا ذا الجلال يا من والد تبلها يا ذا الوفود يا ذا الوجود كل بجود بلا النداء sati wusooli dilaabu booli li أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله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 bismillahi alladi laa yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa laa fis samaa'i wa huwa as-samii'ul 'aliim bismillahi alladi laa yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa laa fis samaa'i wa huwa as-samii'ul 'aliim bismillahi alladi laa yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa laa fis samaa'i wa huwa as-samii'ul 'aliim rabbi anzilni munzalan mubaarakan wa anta xayrul munziliin rabbi anzilni munzalan mubaarakan wa anta xayrul munziliin rabbi anzilni munzalan mubaarakan wa anta xayrul munziliin allahuma ya waaxidu ya ahadu audu bika min charri ma min charri saakini baladi wa min waalidin wa ma walad allahuma ya waaxidu ya ahadu audu bika min charri saakini baladi wa min waalidin wa ma walad allahuma ya waaxidu ya ahadu audu bika min charri saakini baladi wa min waalidin wa ma walad عقدوا الأسد والأسود والحية والعقرب والسارق والطارق والعاقد والنافث والعائن والساحر والإنس والجانة عنا وعن جميع المسلمين bi alfi alfi la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim fasayfikihum allahu wa samiun alim wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz in kullu nafsin ma alayha hafiz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 bismillaahi rahmaani rahiim innaa anzalnaahu fii laylatil qadri wa maa adraaka maa laylatul qadri laylatul qadri xayrun min alfi shahrin tanazzalul malaa'ikatu warruuhu fiihaa bi'izni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya hattaa matla'il fajri salaamun hiya hattaa matla'il fajri salaamun hiya hattaa matla'il fajri salaamun hiya hattaa matla'il fajri salaamun hiya hattaa matla'il fajri salaamun hiya hattaa matla'il fajri bismillaahi rahmaani rahiim li iilaafi qurayshin iilaafihim rihlata shitaa'i wa sayfi falyabudu rabba haazal bayti allazii at'amahum wa aamanahum min xawfin wa aamanahum min xawfin wa aamanahum min xawfin wa aamanahum min xawfin آمنوا من خوف وآمنوا من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف wa amanu min xawfin wa amanu min xawfin wa amanu min xawfin wa amanu min xawfin wa amanu min xawfin bismillahi rahmani rahim li ilaafi qurayshin ilaafihim rihlata shitaa'i wa sayf falyabudu rabba haadha albayti alladi at'amahum min juu'in wa amanahum min xawfin wa amanahum min xawfin wa amanahum min xawfin wa amanahum min xawfin wa amanahum min xawfin wa amanahum min xawfin wa man yuhaajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathiran wa saatan lillazina amanu وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربي اجعل هذا بلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس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 الحمد لله الكريم ذي المنن على استغلال بفروج وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن على استغلال بفروج وسنن شكرت لأنه قد ساقني لوطن بي نفى ما قني وقادني إليه بالتحلي من بعد ما هذب بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز بالعلم بالعمل بالمعلوم وجرني فيه إلى العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم ثم صلاة بسلام تبعا على الذي قد أن أتبعا على الذي من بمرادي اقتدى في سر والجر يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمن ربي فصان الدين وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع وآله وصحبه النجوم القاهر النفوس والرجيم هذا وإن اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داع وأن ذكرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين فقمت مجوبا إليك منك بك عليك و raditu anka mufawwidan musalliman ilayka amri muhajiran lima ladayka summa ilayka la ila siwaka qad sirtu lamma lam ajid sarwaka fajutta lilyama bi xayrin minani wa qutani ila qtifai sunani min badi ma kaana imtidaahu nnaasi yudxiluni fi saraki lxannaasi waqittu lil amdaahi wal itraa'i azadu fi taalifi wal iqraa'i waqittu lil amdaahi wal itraa'i أزهد في التاليف والإقراء وفي تعلم وفي تعليم وفي استغلال بهدى المعلوم فقد ذا ذكر وذا توسل بالمصطفى شفيع عين الرسل وببنيه وبناته معا ليسعى في سريعا أجمعا يا بر يا غفور يا حليم إني غفر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أكول يا مالك يا خالق الأنام أمد هوايا قللا منامي يا خالق يا كامل صفاتي لك تكد كثرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لغيرك الركونا وأن أطيعك بنهج المصطفى سنتي البيضاء يا من اصطفى يا غافر الذنوب يا قريب إني عبيد هاهنا غريب لي بذاك ولإخواني جميع سعادة الدارين حقا يا سميع هب لي في هذا الدعاء إجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي يا خير القسم في المقاسم ولي ذوي الدين بجاه القاسم ولي ولجبا ليلة والبهيمة بحرمة المحبوب إبراهيم wala yesu xayra xalaalin tayibi wa xayra jiiraanin bi xaqi tayibi wasafini fi baatini wa zahiri warham bi alxalqa bi xaqi tayri waraqini tarqiyatan xafiya bi bidi ruqayata safiya waqi adaaya aqraban wa ajnaba wa musliman wa kaafiran bi zeynaba wa ummani bilxayri wa salaama bi ummi kulsumin ila alqiyaama wali yajud rabbi bi husni alxaatima هنا وفي غد بجاي فاطمة صل على أبيهما والآل وسهبي ولتجب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اغترار وغرر ونجني ربي وأهل الدار هنا وفي خج من الأكدار ونجني والمتمين من بلاء والتقي جسماني في قبر البلاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي بجاي من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أختار واجعل حجابا بيننا وبينها كل أذى وتكفي عنا الحينا يا الله يا نثير يا جليل إني أقل مقدم دليل فتغنني بك وهب لي الأرب بمن على جملة عجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نيل الصلاح وسليا وسليما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي ولي خير منن وأملي يا من على أني المكان والعرض إني ساكن هنا وبمرض فكن أنيسي واسفني من سقم حتى أكون سالي مالك الخير لقم يا عدل يا مذل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من على أن زوجة وعن ولد حزن وور جميع أهل ذا البلد وجل إلهي مسكني طوبى أبدا بذمها بجاه خير من أبد وسليا عليه أفضل الصلاة وآله وسبي ذوي الصلاة وكل من خدم مني أوزارا فنجه واغفر له أوزارا وكل من أحبني أو مالا إلا يفرزقه هدى ومالا وكل من شتمني أو لاما وأبلغ توبة واستسلاما وكل من أساء ظنه بيا فليقلب قلبه يا ربي وتكفيني أذى جميع العالمين وتكفيهم أذى يا ربي أمين وجعل بنائي بنا عافية يجرني إلى خيار صافية وجعل بنائي بناء علم علمي وعمل بسنة وحلم واجعل بنائي بناء اهتداء وتكفي عني كيد كل ذي اعتداء وتكفني در أذى الشيطان وإذ به الباغين في الأوتان وتكفي عني كل شخص لم يرد وجهك فاضرب وسريعا إذ يرد وتصرف الجملة ما يسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن وتدخل المدى في يدي وفي داري وثبتا وبالهادي الوفي yi وأعلني وأعل من يعينني ولتكفني جملة ما يهينني ومسكني سلم من الفجار وأمن على الآل بماء جاري واجعل ربي مننا معجلة جالبة لمنن مؤجلة يا حي يا قيوم كن لي مجيب أنت المجيب والكريم والرقيب إليك وحدك فرت من سواك فكن بذاك قائدي إلى هداك وليكن لبا وليا ونسير ولي لجميع المسلمين يا بصير وكثيرا خيرات هذا البلد ورزقه وتكفي أنك دين waltus bi daan fii jamaatan tuqiim asalawaati xamsi daban yaa hakiim wa najjinaa min sari haza zamani wa sara xayrihi wa kulli fitani waltaqinaa sara nasaara walyahuud wa sara iblisa wa kulli zi juxuud wa jina wa dajjaali wa suudaani fi sarqi walmagribi walbidaani wa sara maa fi ardi turan wa samaa min daahirin wa baatinin iktadama ayaa latiifu yaa kariimu yaa jaliil عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قل نجاة وفلاح ووفقنا لثواب وصلاح ودورنا بفعل ما أحببت وتكفنا عن فعل ما أبغت ولا تكن مبتليا منا أحد درا بما لا يضيق يا سمن وهب لنا التيسير والفلاح في كلتا الدارين والنجاح بجاه سليم وجاه من ولد في فرمنا مثله ولا ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اتباع أليس لي أبدا غير صلاة بها نرافق الخيار والثقات وهب لنا أخذ الذي آتانا وترك ما أن فعله نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة وسكنا مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاد مهملة يا ربي يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسب فاغفر لنا يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسب فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبتجرؤ وكثر اللعب فإننا وإن تجرأنا لنا فلا نرجو سواك كن لنا تفضلا ولا تواقدنا بكثرة الفضل في ظاهر وباطن وبالغفل وكن معيتنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء وجب قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه الناصح وسليا أذكى صلاة دافعة عنا وبان من جراد مانعا عليه والآل بأفضل سلام وتابي ومسكني حد يا سلام وزكي نفسي وزدني علما يكتب في الدارين عني هما ودائر القلب وزرني يا حياة وأحيني في طاعة يا ربي واجعل يمينك سحاب في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا آل رفيق بيسلكن اليوم أنفع طريق بحرمة المصطفى المقرب والآل وسبي وساري رجبي جدلي بتقديم وتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموافق الفاروق وليب سعادة الدارين بحق عثمان أخي النورين ثم بحرمة إمامنا علي هبلي في الدارين سيدا يعتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نظمنا بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من إلى سعب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا رب وما يزوره من ملك فوق السماء وجاء كل ذي هدى من صالح أو مرسل أو عابد أو ناصح وجاء كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب وتكفيني جملة ما أعوز من وسريعا بك يا معيز فتجمعا بيني هنا وبين ما يسوقني إليك حيث علما وكل ما أنك يعوق يا بديع فتفرقا بيني وبينه سريع ana alladi aslamtu wajhiya una ilayka aziman ala an uhsina ana alladi lastu amilu abada ila siwaka hauna summa gada inna anta rabbi alwakilu wa anta rabbi fala amilu ya bar anta rabbi alwahabu wa dhibu rahmatika la altahimu ya bar anta rabbi alqasimu wa anta rabbi fala amilu ëllëg ci ñëw leen ko kanam waaw léegi matériel bi rek moo leen taxoon a jóg ba ngeen xam ne nag ñii yor matériel bi rek dañ leen moo ta bàyyi xel lañu waaw yéen nag yéen leen di ñëw ci loolu bu wóor matériel bi di ngeen soxla boo amee ngay dem looti nañ ko dajale auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan walaaw yaxsimuka min annaas ya allah barke borom tuba waxfir li man banaw bina aarafi waxfir li man amarum bihi jami wal tudix lil musliha fi yaddi wa fi daari wa sabit anhu bil haadi wa fi bokki jullit yi bokki taalibe yi eh, seen mbokkum taalibe Assane Diop muy dellu si di siyaare di jiital ci siyaare bi sëriñ tubaa cheikh mamadul muntaxa yàlla na fi yàgg lool te ànd ak Eh, di siyaare sëriñ Afia Boussa al imam tey nag suñu kàddu mi ngi ñëw ci eh, ak leeral li jëm ci liggéey bi nga xam ne mooy aju ci daayira muxaddamaatul xidma bi nga xam ne moo nekk ci diaspora bi eh, gannaaw bi ñu siyaare waa diaspora yëpp diggante Amérique ak Afrique ak Asie ak Europe ak fépp waaye nekk ci bitim réew ñoo ngi leen di siyaare Eh, di ñëw nag ci liggéey bi nga xam ne yàlla daa dogaloon eh, ñu amoon ci ay taxawaay yoo xam ne daanañ ko am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 guddi gi itam day naafila guddi gi itam day naafila waaye daal am na sikk soo xamee waaye daal am na sikk soo xamante ni nekk mel daf leen a laaj sikk soosee mu mel daf leen a laaj sikk soosee moom day nag dafay lor ay moom day nag dafay lor ay dëkkandoo danay danay do def koori ngàtt danay do def koori ngàtt ci bëccëg gi danay la ci guddi itam danay naafila ci guddi waaye daal waaye daal ay dëkkandoom gërëmuñ ko dëkkandoom gërëmuñ ko fi naar yonent bi ko kookee day xiya fi naar gërëm mooy sawara yàlla nañ ci yàlla musal gërëm mooy ñu dégg kon ñu yàlla yi nga xamante ni bu dee def jaamu yàlla yi nga xamante ni mel na la yem na woor ne naafi la lu mel ne naafi la maanduwut ci digganteem ki dëkkandoo maanduwut ci digganteem ki dëkkandoo mën na ñamuy dëkkandoo dëkkal buy lor ñamuy dëkkal su fekkee nanguwut a bàyyi loraange su fekkee nanguwut a bàyyi loraange na sax nekk di ko jéebaane jar na sax nekk di ko jéebaane ak ngir laa biire ko ngir mu bàyyi loolee ngir laa biire ko ngir mu bàyyi loolee dëkkandoo boo xam ne day lor ñam dëkkandoo boo xam ne day lor dafa séeni wut a bàyyi loraange joojee dafa séeni wut a bàyyi loraange bopp dëgg sax léeg-léeg mu jar jéebaane ko nekkat sax léeg-léeg mu jar jéebaane ko te teg ko ci laaj bi ngir bàyyi te teg ko ci laaj bi dëkkandoom loolu googee muy loolu nag fañ ko dog mooy am na ku dikkoon nag fañ ko jàmbat di ko jàmbat dëkkandoom ak loraanga yu jóge ci moom dal ci kawam ak loraanga yu jóge ci moom demal nga muñ yonente mi ne ko demal nga demaat xëy na dëkkandoo ba bàyyi أعوذ بالله

ñu xam yëmut ci nga bañ koo lor rek yëmut ci nga bañ waaye nanga koy muñal waaye nanga koy muñal waaye dee ko ay loraangeem te di ko laaye biire ci lu baax te di ko laaye biire ci lu baax kon ni nga téye sa bopp ba am na ñoo xamante seen ak njàmbaarte te jàmbaar lañ sax mooy fexe ba duñ lor seen dëkkandoo waaye léeg-léeg itam nag duñ mën a euh, muñ loraange yi jóge ci seen dëkkandoo di dal ci seen kaw te ñaar yépp nag nga war a boole mooy bu lor sa dëkkandoo waaye su la tegee loraanga itam na nga ko muñ ngir jëm yàlla te di ko laa biire nag ngir mu bàyyi xatal ay dëkkandoom bokk na ci àq yi nga xamante ni tam dëkkandoo bu nekk yoreel na ko mbokkam dëkkandoom rawatina bu dee jullit mooy su ko gisee na ko njëkk nuyu wax ko asalaamualeykum muy benn ñaareel ba itam suy wax moom itam mu bañ a baril wax ja rawatina wax joo xamante ni amul njariñ ndax wax ju bari dëkkandoo bu bari wax te wax ji amul njëriñ tam léeg-léeg muy lor kam dëkkal naka noonu itam bu mu koy laaj bul topp sa dëkkandoo di ko laaj laaj yu bari yoo xamante ni yu xóot la te aju ci ak dundam goo xamante ni dafa yaakaar ne moom dong nga ko jagoo nga dëkk ci nag waxtu wu nekk di ko laaj laaj yooyu te baril ko loolu itam nekkul ci rafetal ah, ak dëkkandoo bokk na ca àq yi dëkkandoo yoral morom ji itam mooy su woppee na ko seeti seeti bi nag na dem seeti ko laaj ko nu aw yaramam def ñaanal ko yàlla itam mu yëkkati ko bu amee alal itam mu jàppale ko ca garab ya te bañ faa toog di fa yàggal ab toogaay waxantuma laa nag di fa wax wax ju bari naka noonu itam su fekkee musiba dafa wàcc ci moom na dem dëfal ko su fekkee mbégtee nekk ci moom itam na dem ndokkeel ko te ñaanal ko yàlla santale ko yàlla ci mbégte moomu waaye na koy jéggal ay rëcc rëccam bu ko jéggal rëcc rëccam ak njuumteem yi jóge ci moom di dal ci koom na koy ñaanal yàlla itam mu boole leen jéggal ñoom ñaar ñëpp seeni rëcc waaye ba ca toppaat nag mooy bu muy yërndu loo xamante ni dëkkandoom daf koy denc ci biir këram te bëggut ku ko gis loolu nag bari na lu muy xew lool léeg-léeg sax dëkkandoo def ko mbokkam dëkkandoom te du ko tey lu mel ne mu tabax ba tiim ko tabax këram ba tiim dëkkandoom di gis la nekk ca biir kër ga lépp te mën naa am loole muy gis neexu dëkkandoom boobee loolee itam luñ war di moytandiku la la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

إله إلا أهل السلام nga xamante ni dëkkandoo yoreel na ko mbokkam dëkkandoom bokk na ci li muy war di moytandiku mooy tabax tiim dëkkandoom ba noppi ubbi goccéeri ndox ya mu tiim kër dëkkandoom mu fay sotti ba di ko labal ci am ndox te léeg-léeg nit ñi di ko def tabax tiim sa dëkkandoo ubbi goccéeri ndox ya muy sotteeku ca këram itam nañ koy moytandiku naka noonu itam bu muy fob suuf di ko sippi ci buntu kër dëkkandoom bay baare aw yoonam bu muy xatal yoon wi koy yi nga xam ne dëkkandoom ca lay jaar ba mën a yegg këram bu mu koy xatal ci loo xamante ni munta ñàkk rawatina di mool ay mool teg ko fa wala mu fob ay sarsay suuf sotti ko fa wala mu fay sotti ndox mu salte moo xamante ni bala moo dugg këram daf koy moytandiku te yoon waxat na yooyu yépp bokk na ci lor dëkkandoo bu muy xool itam li dëkkandoom di yor di ko nëbbu di ko jëmale biir këram mu bañ kumpa di ko xool ak di ko yërlu loolu bu ñu doon jox misaal rek ci jigéen ñi bu moroomam jigéenam duggi marché ba noppi muy bëgg a dañ kumpa la nekk ci biir legetam waaye boroom kër itam bu yër loo xamante ni da koo jëmee biir këram bëggut ko ko gis jërul di ko yërlu rawat na dëkkandoo wërta def loolu nit ki itam bu fekkee dëkkandoom génn na dem cib tukki bokk na ci àq yam ko yoreel mooy nay gendeeku di xool këram ba xam la fay xew ndax mu cay mën a mën koo jàppale ba mën a am kóolute ci biirab tukkeem waaye bokk na ci li nga xamante itam dëkkandoo yoreel na ko mbokkam dëkkandoom mooy su fekkee daf koo tane ci wàllu diineem mu koy laa biire di ko xamal diineem su fekkee daf koo tane ci wàllu àddunaam na koy xamal la koy jariñ ci àddunaam ngir bëggal ko njariñam yooyu yépp nag moo xam dëkkandoo bi nekk ab jullit la wala mu nekk ab yéefar ndax abdullah ibnu omar dafa waxoon surgaam ba ba mu ko digalee mu koy feesal ab gàtt dana ko soo feesee ba noppi bay séddale ñam wi bul fàtte sunu dëkkandoo ji nga xam ne ab yahud la kooko nekkutoon ab jullit waaye nag kon bàyyi na ko xel doonte ne du ab jullit sayyidatuna asma bintu abi bakrin radiyallahu anha itam nee na bi nekkee madina yaayam dafa jógee màkka ñëw di ko seet si te fekk nee na booba xam ne ne moom duggagut ci lislaam moom yaayam waaye dafa dem ca yónnante bi ne ko kat am naa masala boo xam ne bëgg naa nga ubbi ma ci sama yaaya ngi nii jóge màkka ñëw di ma seet si te duggagut ci lislaam ndax danaa jokk ak bokk ci moom yónnante bi ne ko ah kay man nga ko kon loolu itam ñu bàyyi ko xel naka noonu itam su fekkee dangaa nekk ak sa dëkkandoo te ngeen sësaloo na ngeen sësaloo ab tool sax wala ab boutique sax wala ngeen sa sasaloo kër loo cay man di jaay na nga ko tàggu ba gaaral ko ko ba xam dana ko bëgg a jëndal boppam wala déet nga doo koy gaaral keneen moo tax nag kon jëflante bu rafet boobu su amee ci diggante dëkkandoo yi seen ak dund dafay daal di neex moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne ku yàlla na mu ci moom aw yiw dana ñu ne ko nu mu lay neexale mu ne day def sa digganteeg say dëkkandoo mu rattax rafet man araada allahu bihi xayran asala qiila wa ma asalu qaala yuhabibuhu ila jiraani waaye ñu xam ne lii ñu wax ci diggante dëkkandoo yi yemale wuñ ko ci sa dëkkandoo bi nga xamante ni sa moroom doomu aadama la waaye dafay jàll ba ci sa dëkkandoo yi nga xamante ni sax du ñuy nit waaye ay bàyyi ma la yoo xamante ni sunu borom moo leen bind nim mu doomu aadama wàcce leen ci kaw suuf ni mu fi wàcce doomu aadama ñu bokk suuf si ndax wal arda wadaaha lil anam mbokki bàyyi ma yooyu muy rab yi muy fas yi ak mbaam yee gëléem yi ak berkele yi yooyu nañuy bàyyi xel ne dañoo war a rafetal suñ diggante ak ñoom ci di leen jox aw ñam suñ ko yitewoo di leen wëgg suñ ko yitewoo di leen wutal dëkkuwaay bu baax itam ndax itam bariwaana ñoo xamante nii du ñëpp waaye bariwaana ñoo xam ne sàggane nañu seen dëkkandooy rab yooyu ba joxuñ leen lañ yeyoo duñ leen jox dund bu doy duñ leen wëgg waaye bàyyi leen ñuy mar ak xiif duñ leen wutal fuñ dëkk sax te kat ay mbir yoo xamante nii sunu boroom bindu leen ci ak neen ndax nga xam ko ak ñàkk koo xam am na liggéey bu tax sunu boroom wàcc leen fi ndax wa in min shay'in illaa bi hamdihi walakin la tafqahuuna tasbihahum ña ngay sàbbal seen borom waaye xanaa amaana doomu aadama moo xamut façon ba ñuy sàbbaale seen borom kon yàlla bindu leen ci ak neen ni mu bind doomu aadama muy ak jinne ak nit digal nee leen jaamu yàlla tax ma bind leen ñooñu itam am nañ seen façon jaamu yàlla kon nañ leen wormaal jox leen ab cër waaye rafetul nag liggéeyloo leen diiram nawet bi ba noppi ñu noor bi jot nga ne amalu ma leen dundal ana ngooñ ma foo ko def danga jaay pepp ma jaay gerte ga jaay ngooñ ma ba noppi fàtte ka àndoon ak yow di xëy ak a gontu muy fas ya ak mbaam ya kon nag yooyu dëkkandoo nga xam ne li ñu leen di teg saret yi ak coono yi ñu leen di teg ak door yi ñu leen di teg ba nga xamante ni néewaa na nga gis rab woo xam ne wala fas woo xamante ni dañ koy may muy temp rek mel ne temp moom dañ leen koo alaamal ci ñoom toujours ñuy daw ñuy dóor ñuy daw rek loolu itam nag wax dëgg yàlla metti na lool te war nañ ko bàyyi xel ndaxte mbir la moo xamante ni bu ci sunu borom xooloon te yërëmul mbindee fi rek mën naa wàccee ay balaa ci kaw suuf te loolu itam yàlla nañ ci yàlla musal waaye loolu wax ci fas yi ak mbaam yi ak bañ ñu sëf leen lu ñu àttanu tam moom lañuy wax ci gu ba ci gunóor yi sax ay dëkkandoo lañ ndaxte kat mbokk jullit yi fopp sa bomb boo xamante ni da nga ne yooyu laay rey di pomp rek gunóor ya nga xamante ni ñoo la matt ak yëla mattut yépp nga faagaagal leen loola nga xam ak nga ñàkk xam def nga loo xam ne ëpp na te benn gunóor rek bu la ko suñu doon bindloo ko man di woo itam du la ci jàppale te du ko man kon nag loolu lañ koy mooy tandiku ndax yoo wala matt sax ñu baree bari dañuy fopp pompe rek di pompe noonu nga ne lu tax nga ne pompe nga ne damaa yaakaar ne yooyu danañ ma matt matt guñ la nga yaakaar ne dañoo fa rey leen te buñ la mattoon tam sax matt tolluwut teg rey loolu nañ koy bàyyi xel kon nañ roy ci njàngale mi nga xamante ni nit ñu baax ñëpp moom lañ doon jàngale ci yërëm doomu aadama waaye yërëm bàyyi may yi yërëm euh, rab yi roy ci sayidina isa ibnu maryam alayhi salaam wax nañ ne àndoon ak ki àndoon naa ki saxaabaam di dox ndax xissa bi ki ko ñu ngi ko mi ngi feeñ ci muwatta bu imaam malik ci téeréem boobu ci la feeñ nee na sayidina isa alayhi salaam doon na dox bis ànd ak saxaaba ya ba sàgg am mbaam xuux ñëw jaar ci seen kanam nee na Seydina Isa ibn Maryam dafa taxaw na sëcc daal ne mbaam xuux mi jàllal ak jàmm jàllal ak jàmm saxaaba yi ne ko ngay wax lii mu ne man mii kat bëgguma tàmmal sama wax sama làmmiñ wi wax ju ñaaw kon boo ko warmal na mbooleem rab yi yàlla nañu koy yàlla fayal te fayal ñu képp koo xamante itam ma ngay rafetal ak dëkkandoom digganteem ak i dëkkandoom ñoo ngi ñaan yàlla sunu borom mu yàggal sëriñ bi te may ko fan wu gudd ak wér yaram ba mu yeggale mboolem naalam yi tañ ànd koog moom wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu أن محمد رسول الله أشهد أن لا محمد رسول الحمد لله الذي أحلنا باتباع أعلم العالمين محلا منيها ونهانا عن ارتكاب البدع والمحدثات وأمرنا باتباع السنة في كل الأوقات وصرف المتبعين للسنة تسريعا ونسألك معاذ اليقين وأن لا نقطع العمر آمالا وتسويفا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في عاجل وتوفي وتوقي مقر الله وعقوبته وسخطه عباد الله أكثروا ذكر هذه اللذات فإنه من يصلح بينه وبين الله وكفه ما بينه وبين الناس ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضى عليه ولا يقضون عليه حديث نبيه الصادق الأمين الحمد لله حمد معترف بما أولاه مولاه ونشهد أنه مع بقرابة أو صحبة لعظيم جنابه وعلى علاه أما بعد فيا عباد الله توجهوا بهممكم إلى إلى حضرة الواحد القهار ودوموا على الاستغفار وسبحوا بحمده بالعشي والإبكار وسمروا على ساعد الجد للعمل الصالح قبل الفوات وبادروا بأعمال يجري عليكم ثوابها بعد الممات واتقوا الله وانتهوا أمانا يكم أحكم الحاكمين سارعوا وأكثروا من الصلاة والتسليم على سميع المخلوقات في الموقف العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الشفيع المقبول الذي جعلته واسطة في كل خير وبابا لمن أراد الوصول اللهم كن لنا سكناتنا بما كنت به لخاصتك وارزقنا يا تواب توبة نصوحا ووفقنا لما وفقت له عبادك المخلصين وأسرق في قلوبنا وفي قلوب جميع المؤمنين أنوار اليقين وآخر دعوانا آمين الحمد لله رب العالمين يغفر الله لنا ولكم آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهداه والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحواه سنقرئك فلا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 فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم السلام عليكم السلام